fay xew appartement de lu fay xew waaye ñoo gën a mus ñëpp ndey ah ah ah ah. aha aha dañu foog ne ñoo gën a mus ñëpp ndey njaay fakkin ne yow ah kuñ ko sekkal dem bala fa ñoom ñaar fakki ni di mbarante du ci dellu ginnaaw Chacha yow pax bu ne gas nga ko te boo ko gasee ki nga bëgg mu dugg ci du ci dugg lu ne def nga ko ci réew mi surtout maak ci kër gi appartement 2 bi def nga fi lu ne lu ne lu ne ñun bu dul dara ñun say raq lañ am na yenn yoo xam ne bu ko nit mënee sax war koo bàyyi li nga def fi mu toll nii mu gën a ñaawati li nga doon def yëpp yow war ngaa comploter ak sa far néew ci kër gi ngay teg laay saw dil ci ay million millions naa ko fay ak kii moo ko fay 2 million léegi yow 2 millions yooyu bu la ko laay saw joxoon bu leen ko joxoon yéen di ngeen ko lekk yéen ñaar. mu rees dama koy lekk ba mu rees. Ah, noo ma gisee nag. non nii moom nii moom macha allah fi mu toll ah. yaa ngi mel ni camion Alaaji Jamil Faali. tey yàlla ci camion yi yow li wax fi mu toll nii yaa ngi belli zoose te fu kon baax na yow daal boo kontaanee rek man kontaan. non bëgg naa bëgg parce que lii ma gis ci yow daf maa doy sëkk. doy nga ma sëkk doy nga ma fii doy ma fee doy ma fure. yaay sama l'est l'ouest le nord et le sud. waaw waaw yéen yi neex na di. Eh, yaay sama 4 avril. Ah. Eh, yaay sama mois de mai. waaw dégg nga lii yéen. mars avril février. waaw ah, lii ngay waxoo ko eh, ko xam bu ma nee feneen. yow Chacha nag te ñun suñu papa mi ngi dund. ku la loolu. ku ma koy wax ku papa Cheikh moom ma ko wax ma carrément suñu papa deewul mi ngi fi di dund. day fen waxul dëgg. lan mooy loolu. day fen. yow papa nga yow nag ni moom sa jaradiku nga am. mooy si saa nit nga wala la sama papa day fen waxul dëgg. maala ko wax te loolu duma ci waxaat. mais c'est ça moom amul gang bu mu bokk fan nii ba tax mu judduwaat nii wala kii ñàkkul ni mi ngi fréquenté nday awa walla ndumbe kii mi ngi leen di fréquenté waaye yow sa tànk laay ko ñi ñoo gën a muus ñoo gaaw gisee ma woo mën naa ni sama ñàkk jom la arrière nga ni ma boo gisee ma mën naa sama ñàkk jom la dangaa déggul olof wala dégg naa olof kañ ariyataatal bandab nga ma boo sama ñàkk jom la mais dama pexe soo dama yow jom ndax chaque jour ma sama soxla nga ma mais damay toll foo xam ne damay bëgg waxtaan ak nit te yow yaa ma jege. kon nag nangul yàlla lu mu def. waaw fiseuse mooy tax fal. waaw moo tax ma nangul yàlla def moo tax ma ñëw waaye yow it nga seet yàlla nga noppi bu ma la waxee mu yem sama diggante ak yow nga suturaal ma. lii moo ma sonal. xam naa ko xam naa ko mais il faut ma waxtaan ak yow Kaaw démb boo gisee gisante wuñ ci guddi hmm. kër Ardo la demoon. kër kër ardo ah fa moo tax ma guddee looy reer foofu macaroni wala looy reer foofu ginaar yu baax <laughs> ginaar yu jigéen ngay reer ginaar bu jigéen ginaar bu ëmb ngay lekk dafa neex <laughs> bàjjen maa ngi jégalu de ndax man maa waroon ñëw sa fekk si la mais kër gi moom des fois ñëpp dañuy dem donc tëj ko bàyyi ko noonu wóorut li tax ma woo nag mooy mm. yow laa fi gis comme kilifa laay so boo xam ne ba muñ sëy ba léegi su neexee su naqaree yëpp da ngay ñëw mm-hmm. maam nag lu ma jaaxal lool ci sa doom parce que nag gor su nekk kàddoom la am am na lu ñu waxante woon te gis naa ne mi ngi soppeeku ndax mooy kii fi xale bu jigéen bi fi ñëw fan yi fayal ko xaalis bi euh, xale bu jigéen boobu ñëpp xam nañ ne jabaram la woon dëgg la mais am na lu doxoon seen diggante loo xam ne rafetul woon ñaawoon na torop laay nag di ko nakkarlu di ko nakkarlu maa moom ñu jóg ko daan di jóg ko daanu ba tey jii ma ñëw sëy si ci biir kër gi ba ñu ma wujje ndax ba ma demee di signé ak moom ñeenti jabar laa la signé donc xam nga ba ñu ma wujje mais xale bu jigéen boobu dafay ñëw man xam naa ne li ko tax a jóg du sëy ak laay sow rek ndax ñëw na ba fii ne ma damaa fay 7 millions pour yëngal la ruube sa sëy wax naag laa nag ne ko nag gor ci kàddu ga yaa waxoon bés boo jàkkaarloog moom say bët moom da koy fase ndax koo xam ne dem na ay weeri weeri weeri weer xamoo ci lu mu nekk nga ni sa jabar la nga bàyyi ba tey mu ñëw nga ni noonoo duma ko fase parce que lii parce que laa di wax loo xam ne daal teguwul man nag naa la woo waxtaan ak yow ndax nag laay moom décision bi mu jël bés bu ko jëlee ah dina ma ñàkk de pour nga wax ak moom. yow sa biir yoo wax da nga ni laay da ngeen a signé ñeenti jabar mm. di loolu nga mm. laay di ardo la njëkk a takk mm. lu dëgg ba mu takkee ardo wàccul ardo de di xam nga ne ñu ngi sëy ba léegi ah. yow kay lii la ardo def li ardo def sax lu ko laay yow la ko defar tey bu ñëwee fekk laay ne ci ay tolof tolof mu yëkkati lu tolloog juróom ñaari million fay ko bu ko fayul woon heure bi doo tala xëyoo tala xëccoo ay ay ay ay jabar dëgg la wala du dëgg. kaw ginaar fu muy ëmbee. ginaar yi jigéen yi day ëmb yooyu dafa neex. kaw bi ma demee démb ci ardo waaw waxtaan nañ waaw te sama xel sori na lool. waaw te jigéen la. waaw te ku baax la. waaw waaw xëy na seytaane duggoon na sama diggante ak moom. waaw sama xel jaxasoo. waaw mais li jaxase woon sama xel. waaw démb dama koo gis sama xel mi leer naññ. Ah. doom ji muy wax. waaw gis naa ko. léegi def nga test Adama. non dafa ma test Adama de. kaaw loolu soxlawul test. ah xale bi maa ko jur. Ah. xam nga sa deret. waaw. bu la jegee rek nga xam ne sa deret dafa for dafa for dafa fort ko séenee waaw seen ñeenti bët tase ya. waaw xam naa ni sama doom la te moom xam na ni may papa doom boo xoolee kanam bi rek nga am si man bu ma ko xoolee rek am na loo xam bu ma ko gisee rek dinaa xam yaa ko jur <laughs> te problème bi mooy waaw dama bëgg Ardo del dellusiwaat toog am maa bëgg Wow, mu nekkat du ma sax mu sama soxla ndaxte bi muy dem mi ngi ëmb. waaw kon sëy bi tasul. tasul woon góor sax lay jur. dëgg la yàlla may na ko mu mucc ak jàmm. waaw dama bëgg mu dellu si waat toog place am. si. li kiy ñuul nag mooy. waaw barki dem waxtaan nekk ci ki ne tuuti. mais xam nga rek jigéen bu fiir daf ma ni bu ardu day génn waaw loolu daal moo ma jaaxal loolu lay wax yow jigéen la rek kon yow dangaa waroon a dem jëli ardo indi ko ci kër gi delloo ko ab laay ci sama gis-gis man laay wax ndax ku nekk ak sa gis-gis ñun jigéen ni lan moo tax ñun fiiraange di ñu yóbbu ci loo xamante ni ja daray àdduna jaru ko xaw ma ko ardo jabar la ngay jabar ci buum la nekk ba léegi comme ni nga nekkee Ablaye ci buum Ablaye bu nee la day wacc arbre mais day wax lu ko neex wàcc ko tey wacc ko ëll te loolu sax dama ko du seetaan bu dee dëgg rek nga bëgg a dégg man duma ne kenn yàllaa lay nuyu gisuma ko lu dëgg jéem a la puus laay mii mu indi arbre ci kër gi ngeen nekk ci jàmm ak salaam. ba nekk. nga ne. suñu fu muy nekk. ah waaw ban néeg yow <laughs> man daal nag man xale jigéen yi nag man jaaxal ngeen ma man. waaw bàjjen soo demee ñaari jabar na ko man waaw Ablaye est-ce que bu ko Ardo fayalul woon talal ne fii di xëccooy góor. loolu mooy sama. yow daal Ablaye yow daal lal bi rek la ñor daal yow yow daal xaw ma noonu nga koy waxee xaw ma nu mu tuddati karole daal moom mooy sa bagaas daal yow xooloo dara ja laay amul bonheur laay dundul laay boo ko gisee mi ngi mel ni ku siri ngara. dox naa doxa doxa dox waxloo ngeen ko taañ ngeen ko téesante ba nëruwul sax nit ardo mii nag baye ngeen xool ko ca kaw jigéen la rek moom du ñàkka moom mu def effet moom du ñàkka mu def effet kon jigéen la rek du mujj fenn amuñu fenn fu ñu dem man maa la ko wax mënuñoo dem fenn amuñ tuñ kër bu ñuy dugg ñu tee leen amul fenn fu ñuy dem fii waxuma dere waaye kër parement yi ni ñu mos fii mu indi fii magam yi yëpp ñu nekk fii nga yore leen di leen jox añ reere ndekkee fii ci biir kër bi moom mu dem tey fenn waxul dégg waxul dégg man maa la ko wax xoolal départ bii nag day def effet ndax dina def wuxu def ay affaire kon ak defal man sax menace yi jot na ci mm. wa ndey Ndiaye menace nam kon yoy yep après day te ngay xol si biir lolu ngay arrêté ko parce que nak mom karale yi fu mu mun dem mu am kara kara yi nga am de kara yi muy am ni muy am fini, ni ah <laughs> day day coow munu ko am. yan ka yow lo xam ci karale yi muy am fi ah loh ci xam. karakasel wa yow lo ci xam bu koy wax yow man yan preuve nga am ci karole yi muy am fi bakoy wax déedéet dama gis bo karalee bu hey de contane de wax karole karole karole karole ma <laughs> am ne yaangi def karokaas xoolal bu sonal sa bopp gis nga ardo day def effet yow ben sa affaire bandi yooyu day def effet wala nii nga <laughs> koy fecc da ngay jarni jarni ya nii yaa ardo eh, ngeen ni Eh, bandi baa ngi nii <laughs> du tas tey du tas suba ginnaaw suba waxaalewuma ko bu dee looloo taxoon nga woo ma fii noppalul waaw booba léegi Ardo fu mu nekkoon maanaam avant laay di ma takk ba mu daw ba léegi nii Ardo fan la nekkoon yéen di jënt ngeen ko wala war ngeen ko te nee na jabaram la Ardo de xaw fu mu newoon waaye ni mu dikkee neex na moom man de xaw ma fu mu làq woon waaye dikku ardo moom ñëwee na doole doole la dikke de bay boo nag nga jéem a waaj rek toog dafa fas sëy sa sëy bii loolu daal laa lay wax boo fi dof dof loo nag wala nga woye di wala nga dégg su doon mën a ba tas sa sëy bii danga welleeral ndax dëkk bi nu ne góor daa jafe amut fenn góor ci boppam amut lu leer nag laa la wax laay mi rëcc na la rek mooy yaa nga ca kaw ca ngol ngol ga wax naa la li ma xam nag jërëjëf dégg naa sa kàddu. ah mbaa jàmm la dafa cooy góor bi bu fekkoon fekkoon dungu siin di nga talax a cooy góor man li ma lay wax laa lay wax du ma amul ma de si nëbb amul ma ci làq dama lay wax dëgg àddo jeeg la ngay jeeg day sëy ngay sëy riigal sëy ni moom fas yéene koo yaatal ci kër gi te xam ne yéen fi bokk yam kese nag ëppale woo ko fi dara ëppale wu la fi leen jéem jël ñaar jox ko ñaar mu jeex waaw kay loolu daal laa gis ma bokku ci ñi réglé kaay yo bàyyi li ngay def li ngay def mbaram bi du solution yo li ngay def li ngay def dama wuti solution yo li ngay def li ngay def waa baay yow lu yow yow yow yow lu ma la laaj rek nga ko nga nga ko yéexal ni ah maa ngi war a dem def benn analyse yow yi ma déglu ma ngay jaay làmmiñ bu rëy waaw yow dangaa mel ne kuy bëgg a daw sa responsabilité ëmbal ma ba pare lu ma la wax nga commencé di bañ yow yow est-ce que yow yow yow normal nga. ah yow lu ma la laaj rek lu ma la laaj pour visite ak lee rek foo jaar am loo ci teg est-ce que loolu lu rafet la damaa bëgg sama xaalis laax na nga ko indi tey na nga ko indi suba damay dem hôpital mën a daw say responsabilité yow xanaa yow bu xale bu juddoo yow yow lu mu lekk walla lu mu naan doo ko lijjanti yow wax rek ngay def ak sa dara bu saf saabu boobu yow dimbale ma waay yow maa ngi lay xaar nag du ma tëdd ca indiwoo ko baax na. paa bu tëf meer la paa bu tëf meer paa bi dafa tëf meer analyse bi muy sama ndey maa ngi yóot muy sama ndey laa ilaha illallah non déedéet yaa ngi ree sa musiba de ñuy jox la ñaari borosel rek toof la si bâtiment yi loolu lu mu ko di eh, loolu sequñu ko de dégg nga li ma la wax dangaa yabaate na nga téyes na xool say wax nag dégg nga li ma la wax jàppee ko nit di wuy téléphone rek nga toog di di nga mës a yendu dégg loo xamante ni dootoo ko defati. <laughs> kooku garaaw na de. laa ilaaha illallaah ku tëf sa sa noo ku tëf sa sa mun na tëf gileem sax mun na ko tëf <laughs> sa sa léegi day laaj la léegi léegi dañuy waxtaan rek fan la lay tofe ko moom fan la ban ban endroit la. léegi dofe ko. sa biir caaye boobu la. déedéet xaju loon fii ay sama caay bii moom xaju leen si biir moom sama caay bii xaju leen si biir fii moom koy waxal rek fi ngeen nekkoon <laughs> kon yow c'est ça yow dangay karale ah dangay karale. yow xanaa li nga mënul karale moo la naqari. <laughs> man bii damaa kay daay. da ngaa li waa koñ bi di woy yëpp dégguma ko. yow nga jël xale yu jigéen di leen teg sa biro bi ñuy lekk sa xaalis te dégg naa karale bu baax sa mënoo ko. kay kon kay ki karole moom ba ba def li kay kooku jàmbaar la damay def 35 minutes. dafoo benn yow lu loo doxara dañ la koo jiiñ yow munoo dara. man damay dem yow munoo dara dégg naa yaaraw galaas yow. man damay dem boo taseet. du dem ba tase. du ma taxaw du ma tase ana say preuve. ana say preuve. ana say preuve. yow Ndeye Ndiaye mii sax Ndeye Ndiaye mii sax dégg naa. Hmm. bu la jegee sax nga daw. man ñaari moom lay am. yow est-ce que ak xala xale bu jigéen ba nga mujjee jàpp ca bang ba xam nga lu ma wax néna yow ya raw banana bu fanaan semaine néna ca bang ba ya raw néna carolé yow néna carolé mom dang koy dégg rek yow dangaa bëgg xam rek dangaa xam rek man xoolal man yor ni ñaari ñaari mo play ya, yor ñaari moom ñaari ko ba yor ba tay toog ni kaay toog nii xasab xasab yow da mën dara yow li la naqari sa moroom yi karole te munoo karole man yow loolu man yow jàppee man su karole du ma la karole yow yow du ma la karole yow nga xamante ne nii dingaa dem boo fàtte du am ay doom ngay door a ñëw ñu lay tuuf di lu dof doon ñàkk fayda yow paa paa yi nga xamante ne nii ay paa yi sagar yi ñooy tuddi la dof yow waaye def na preuve muy sama ndey wooy paa bi paa bi def na preuve yow am sa preuve yow am sa preuve yow dëkk ba sax dégg naa yoroo fa bant dëkk ba sax yoroo fa bant yow seetal sa bopp yow di doxaan gel nday njaay bu la jegee sax nga daw di jooy yàqule nga barki dem fii laa tëdd ci biir nday njaay jege la rek nga daw naan ko jii di def yoo xamante yow nday njaay lu may sakk ak moom keroog rek mar naa ko naa ndey dama jëm jéem sa glace bu congelé keroog rek mar naa eh, mar naa ndey njaay yow de boo maree ndey njaay yow xamuloo da ngaa bugg a xam moo teg ngay wa yow demal faju ji man naka wuy ma demal faju ji oh, xam nga am na fa maire boo xamante ni moo yow maire bi soxlaw ma ko li mu yor am naa man maire bi soxlaw ko man man li ma am naa sama bopp man man damay dem damay dem boo romb te seet di taxaw yow bàyyi li ngay def li ngay def yow bàyyi li def li ngay def maanaam du solution yow bàyyi li def li ngay def yow kaa eh xool ma dara dalu la dama ne nga xool ma yow caa yow yow kaaw léegi yow cuu nga wala caa yow ban nga ci doon ñaar yooyu fan nga far. cere daal laaj ma man waxuma waxi cararal cu ak caalaa la laaj. ma ne cararal laay nag cararal. mais yow kaa yow ban genre nit nga pour yow dégguma la fii laay saw di la menacer nga bokk ci camp laay saw ak ardo yéeg naa lépp nag li ma lay wax len dong la maag yow dañoo am lu ñu waxante woon te yaakaar naa ne yow doo war. ndey yow. ay yow waru nga ma kañ dèjà waru nga ma ni ndax laaj sa wax naa yow nga ne nee mu koor ak moom kon ça veut dire da ngeen a bëggaat aar ñëwaat ci biir kër gi. waaye léegi nag Ndeye Ndiaye nag nañu waxtaan Ndeye Ndiaye abalaay ah, abalaay man dama ko yërëm rek dama ko yërëm ah, muy situation yi ah, kese la boo pare abalaay ak ardo am na fu ñu jaar yow. man damaa lijjanti fu ñu aw. lijjantuuma fu ñu jaar intéressé wu ma man la loolu sama yoon nekku ci comme que nag Ado day duggaat ci biir kër gi man moom jël naa sama engagement takk bi sama diggante yow na doon suba suba ñu muur ma ma sëy maag yow ñu wut fi ñu ne kër gi doyal naa fi sëkk sëkk sëkk nañu sëy nga wut foo dëkk appartement luyee fii à côté xaw ma fooy luyee du ñu nekk si kër bi lu ma fii def Ado bu ñëwee ban néeg laay dëkk fii ñaata néeg nga fi am. waaye yow ñaari néeg mu ngi fii salon yi. mu eh, ñu defar salon yi organiser ko boobu mu rafet ah. mais kaay yow nit nga wala euh, souverainement man mu a sax léegi man ngay gis sama bopp man kóodo maa ngi yow man bu ñu seeyee ñu fanaan ci ci salle bi eh, nga. dama ni ñu defar ko comme néeg. léegi kenn bu ñëwee fi ñu leen dugal. waaye déggoo li man man kër gi maa fi doyal sëkk. dañ danga may takk wut appartement may sëy di jaagar jaagar comme ñëpp. ah léegi da nga bugg ma luwe si côté bi. parama parama yi. ngay jàkkaarloo ak ñoom. waaw di togga si def yooyu. dëgg la. Ah. laa bëgg may ma ma wut doole tuuti. déggu ma maa ngi si section takk balo yi maa ngi commencé fay ko ma yow yaa wax ma liggéey am xaalis tuuti mais ma ma liggéey. Ah, Ndeye Ndiaye nag defal na man kay pare naa. par bu mel pare eh, naa man pare na eh, eh, man pare naa. waa léegi suba. pare nga kay ah, léegi suba suba suba Ndeye suba moom gaaw na man dama laa laaj dara guro ngay jënd woo paa yi ñu takk sëy bi loolu ban problème la. ma si bii tas. waaw. léegi mu ma fii si digg kër gi ma sëyi. suba suba lépp ci suba bi suba. Eh. dinaa wóor loxo loxo si yi bàyyi am. loolu fii am na ay appartement yu ñu luwee loolu kañ sedd na loolu kañ dem na ko te lijjanti naa lépp. dañ may takk suba ma sëyi suba nga karole ma suba. Não. Não. Dá com a gola, dá com Vai, olhe para baixo. Ei, dai, toga, toga, toga. Dá cornola, dá coro. Eu lá, ó. Dá core. Water. Porque isso lá, bila, olha, tá lá. Tá com isso, olha. Hã? Tá com isso, olha. maa ngi uti xaalis maa ngi xool si ñoom Abdourahmane ak ñoom ak ñoom ak ñoom Aboubacar yi ñooñu ñëpp maa ngi dem xool leen mu la <coughs> ay waay mu kar yal na yàlla tas sa yaakaar nga tax affaire yi bañ dañu foog ne ñoo gën a muus ñëpp ndey njaay fàkki ne yow ah, ah, ah, kuñ ko sekkal dem mbala fa ñoom ñaar fakkin di mbaraan te du ci dellu ginnaaw la topp ko bëgg ko loo te gisul luy dee tas na sa